asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew gépp noo ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko jëmale ci mboolem ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ko tàmbalee ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na feq aw fana mu gudd lool te ànd ko wér lim yéene liggéeyal Serigne Touba lépp yàlla na ko def ci sago tañ ànd koog moom ak mboolem njabootu borom Touba gépp di leen nuyu ci kilifteefu sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp ko Cheikh Mour Moustapha ak mbooleem Daaru Xuddus gépp ak ay jëwrinam sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak sëriñ Cheikh Abdourahmane Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma nuyoo boobu ak ziar boobu ak ñaan yooyu yëpp noo ngi koy def nag ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna loo président daayira ahibayil xadim li nusrati dinil xawim noo ngi fii ci Taif Mbacke foofu lañ leen di nuyoo janoog sëñ Mouhamed Mbacke mi nga xam ne mooy ab sëtam tëdd fi yàlla yàlla yokk leeram ak rakkam ji Cheikh Abdou Fatah Mbacke ñu teew ci kilifteefu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mi nga xamee ni moom la Cheikh Moustapha teg ci loxoom daayira ahibal xadimil nusrati diinal xawim gi nga xam ne ndigal li ñu feregale ci ci loxoom la tege waaye nag mu seq ko ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk daayira bu mag boobu ci biir réew mi ak bitim réew jiitu ci mbooleem seex si nga xam ne ñoo aju sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke te bàyyi sëriñ Mbacke Gueye ci jiite ko ay jëriñ na mi bi bàyyi sëriñ Mbacke Gueye ngi fi ak sëriñ Xaadim Gueye ak cheikh chep mboolem jamaatu mu dina saadi xiina ci njëriñ sëriñ Baara Lo sëriñ Cheikh Kana ngi fi ak mbooloo mu baree bari ansaaru diin sëriñ Mouhamadou ma mi ko jiite mi ngi fi ak ay aw jëriñam diaspora sëriñ baara Sall mi ko jiite moo ngi fi ak ay jëwrinam soxna Mame Bousso mi nga xam ne it moo jiite mbooleem jigéen ñi ay ndaw ma ngi fi soxna Bessé ak ñi mu àndal ñëpp ñu daje fi nag fekk fi ki nga xam ne moo jiite section bi di sëriñ Abdou Rahman Lo moo mi fi ak mbooleem section Taïf gépp ci turu ñi nga xamee ni ñoom laa tudd léegi ci ñiitu Cheikh Mouhamadou Bara ñooy yëkkati ab nuyoo akub ziar ak kàddu goo xam ne ñu ngi ko jëme ci mboolem jullit yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew muy kàddu lan mooy kàddu woote guddik juddug rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy guddi gàmmu ñu fas ko woote waat ci turam ak ci ndigalam ci njiitum sëñ Mouhamadou Lamine Bara ak sëñ Fallou mi toog ak jëwri yi ma tudd léegi ak mbooloo yi ngeen seen fii ñu fas yéene yëkkati kàddu googu jëmale ko ci julli ñëpp ci réew mi ak bitim réew kàddu googu nag mi ngi bàyyi ko ci kàddu sëriñ Moustapha Bassirou Lo mu jot li ñu ndigal li mi wax ci gàmm gi ak ni mu ko teg seen loxo ak ni mu bëggee ñu doxale ko ni bu ñëpp sëriñ Moustapha Mbaye it mooy yëkkati kàddu ci mboolem daayira ahibaal xadim li nusrati diina xawim ginnaaw bu ndigal li jógee nan lañu fas yéenee jëfe ndigal loolu ci turu Cheikh Modou Lamine Bara sëriñ Moustapha Mbaye dana yëkkati kàddu mu jëm ci mbooloo mi nag ci ndigalul soxna mbosum nga xam ne moo jiite soxna yëpp it soxna Bassé dana yëkkati kàddu ci turam mu ëmb mbooleem woote bi ci jigéen ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi moo ngi leen di jottali kaddu yi nga xam ne mi ngi bàyyikoo ci sunu sang Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké Cheikh Moustapha Mohamed ñu ñaan sunu borom yàlla na ko yàlla yàggal ci sunu kanam lool te wéral ko lool ci barkeb Serigne Touba Serigne bi wax na ne mi ngi fàttali bis bi nga xam ne moom la dëgmal di laylatu mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy fàttalee ndax fàttali daa am njariñ waaye it ñu ngi koy woote itam ci képp koo xam ne mooy sa buntu ci Serigne Touba bi nee na mi ngi lay mi ngi lay mi ngi lay woo ci bis boobu di la woo fii fi Taïf te di la ko fàttali te di ko fàttali jullit yëpp waaye nee na loolu it mi nga xam ne ñëpp mu ngi koy defal al ummatul islamiyya bépp. mu ngi ko defal njabootu Sëñ Tuubaa gépp waaye mi ngi ko defalit ñii nga xam ne ñoo di léppam ku tedd ki nga xam ne saa su ne mi ñaan ñu jàppale ko ci loola mu yàgg fi te wéru muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké kon sëriñ bi leen mi ngi def bis bii ci ndigalam te fas yéene ko fee nekkal mook mboolem ku mu àndal Cheikh Mouhamed Ahmadul Mokhtar Mbacké bi fi nekkal Cheikh Moustapha sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi waaye sëriñ Abdourahman Mbacké moom Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma kon daal ak Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu guy mbind moom sëñ Cheikh nee na mi ngi koy defal itam ni mu ko waxee ku di jullit fa mu fi mën a ne mboolem Cheikh Serigne Touba yi mboolem taalibe Serigne Touba yi ñëpp Cheikh Moussa saa na mi ngi leen di yéene bis bi nu dëgmal kenn ku ne yàlla na saa borom defal lu kawe sa njort nee na nag mi ngi ci mu ngi ci woo ñëpp nag nee na fii la ko fas yéene def nag ci Taïf fii ci Serigne Mohamed noonee ma ko daa waxee rek na ko ñëpp fekk fii. loolu moom nee mooy ndigalam nee na tam képp koo xam ne yaa ngi jóg di ñëw ci bis bi mi ngi lay digal na nga yëkkati sa yitte lool ci pas-pas ak pas-seef ak fas yéene sellal bés bi fas yéene ko sellal bu baax a baax ak i teggin yu mat sëkk ndax bés bi mate ko jëmm ji ki nga xam ne moom lañ ko defal itam muy sallallahu alayhi wa sallam ko te ngëneel yi yi bis bi lamb bari na lool kon nee na képp kuy ñëw digal na la lool yi nga ànd ak i teggin ànd ko yar ànd ak pas-pas ànd ak passeef te fas yéene koo sellal tam nu mel ne nañ ko defe nee nag sant na bu baax a baax ca la weesu lépp sant na ci baax di suñu borom nangu ko ko nangu woon yàlla na ko nangu saa su ne nee na itam mi ngi ñaan itam gii ko nangu nangeen xam ne wu yéeme lay doon woo xam ne rek day tolloog suñu borom ba ci baaxu yàlla nee na loolu mi ngi koy ñaan ci bis bu baax a baax nee na nan fonkit li bis bi laaj li bis bi laaj nag ni ko sëñ Tuubaa diglee mooy teew taw nañ ko ba tey gàmmu dee su ko yóbbante képp ko mën ngànt dafa bokk ci sarti gàmmu teew mooy fukk lu mën xat xadara teew gi daa mënta ñàkk la yeneen ba mooy berne yi leneen la ca des mooy turu yàlla yii fii tudd yooyu yëpp kenn ku ci nekk neen loo ci mën ca loola na ko bàyyi xel nu nu maas yi def yooyu nga xam ne sëriñ bee ko wax te lu ci nekk mu wax ne boo ko defee lañ la ca fayee suñ Tuubaa tudd na ko jës jësbul xulub muy yu baree bëree bëri kon nee nañ fonkat bis bi bu baax a baax a baax nee na itam ngi yeesal ndigal li ci liggéey bii di ahibaul qadim li nusrati diinil xayim nga xam ne ca njëlbeen la waxoon ne bés bii ak bés bi Serigne Touba fanaanse Touba teg na ko ci loxol liggéey bii di ahibaul qadim sëñ bi nee na fedd liwaat fedd liwaat na loola te nee na mi ngi ko àndal moom kon nee na lépp lu ci mos mos di def rek nan jàpp ne atum ren mi moo war a raw ci loola. kon ci turu mboolem juróomi rek groupement yi nga xam si ne ñoo seq daayira ahibaul qadim li nusrati diinil xayim tàmbale ko ci regroupement section yi nga xam si ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moo ko jiite jaar ci regroupement Cheikh si nga xam ne si ne Baye Serigne Gueye Ngàcc moo ko jiite jaar ci regroupement Jamaatul Mouridina Saadixina bi nga xam ne si ne Baye Barlo moo ko jiite jaar ci regroupement bi nga xam ne si ne sëñ Mouhamadou Mbaw moo ko jiite ba ci regroupement diaspora nga xam ne si ne sëñ Bara Sall moo ko jiite ñooy woote ndigal li nga xam ne si ni nañ ko dégg ci Cheikh Moustapha moom sëñ Basir Lo mu jóge ci Cheikh Moustapha moom sëñ Mouhamadou Mbacké di sunu jëwriñ di sunu wasila ñu ngi koy soññee bu baax a baax a baax a baax di woo mboolem ñu koo xam ne si ni ab membre nga ci juróomi regroupement yooyu kon ñuy fàttali ni ñu ko waxee léegi njiit yooyu nga xam si ñoo ko jiite kenn ku nekk mu fàttali say daayira moo xam da ngaa bokk ci ab regroupement wala nga bokk ci ab section wala nga bokk ci ab daayira ñu ngi lay fàttali ndigal loolu nga xam si ne Cheikh Moustapha joxe na ko mooy gàmmu édition 2022 1444 ci ati gàddaay gi bis boobu nag ni ko Cheikh Moustapha Bassirou waxee day bis boo xam si dafa foor lool ci diine Cheikh Moustapha fonk ko lool muy laylatu mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu mu jëlee ko ci la nga xam si ne maam ja Sëriñ Tuubaa na ko lool ba bindoon ca lu rëy rëy waxoon ne fa man yoxasi mawlida xayril baraya ahmada faka sahidin shahida badran bi xayru hami képp koo xam si ni màggal nga guddig laylatu mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam day mel nga ni ku teew a badar te wax jii ma wax nag du waxi def waxi def le wax ju wóor a wóor a wóor la kon bis boobu jar na fu waay nekk mu bàyyi koo fa ñëw fii ci Taïf màggal ko ànd ko sunu sëriñ Cheikh Moustapha mi sëriñ Mouhamed Mbacké kon Cheikh Moustapha mi ngi woon ñëpp waaye regroupement yooyu ci njiitul Cheikh Mouhamed Lamine ñu ngi woon ñëpp waaye képp koo xam si ne ab jullit nga ndax daayira Ahibahil Khadim turi mooy képp koo xam soppeb Serigne Touba nga te yaakaar naa ne képp ku di jullit nga sopp nga Serigne Touba kon woote boobu yëmul rek ci Ahibahil Khadim ku ci di membre waaye képp koo xam si ne ab jullit nga Serigne Touba di sab soppe Cheikh Moustapha di sab soppe ñu ngi lay woo fii ci Taïf bu wootee ba noppi nag ñëwin wi it fàttali ndax woote woon rek ngir ñu ñëw teew tay fi daa am teewin wuñ fi bëggee teewin moom mooy na ko sëriñ Tuubaa daa defee ci njaareem toog jublu penku fanaane yenn doo dundal ak fanaanee dundal guddi gi nga xam si ne mooy laylatul nabi sallallahu alayhi wasallam ndax da cee indi nag lu yees ndax gàmm ne guddi la waaye Cheikh Moustapha ba mu ba léegi nag day boole bëccëg gi ak guddi gi ñu koy dundal ñu koy dundal kon képp ku ñëw na nga teel a ñëw te boo ñëw ne waxin dundin ñëwin wu ñu wax nga ñëwe ko ni te mooy nga sol de gis ma ahibaalu xaddim loolu moom ñu ngi koy wax ñu ngi koy digal képp koo xam ne si am membre nga waaye nag di ko sàkku ci képp koo xam ne si nii maanaam ab soppe nga ku ñëw ngay sol déguisement bi te mooy lu weex tàll ak kol gu baxa loolu daal ñu ngi koy digal képp koo xam ne si ni membre bu ahibaalu xadim nga di ko ñaan képp koo xam si ni soppeeb ahibaalu xadim nga boo xam si ni yaa ngi ñëw ci guddi googu kon daal na ñëpp ñëw fii fi Taïf Mbàkke ci barabu Sëriñ Mouhamed Mbàkke bi ñu fanaani ko fee dundal ba asamaan set di ñaan yàlla mu yeggal ñu ci jàmm ci barkeb Sëriñ Tuubaa waaye di yëkkati nag kàddu yu ndigal yu ñu jëlee ci suñu kilifa suñu jawriñ ci liggéey bi soxna maam bu sa Mbàkke mu di ko jëmale ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci regroupement de daayira Ahibaahil Khadim mm-hmm. ci jigéen ñi ñëpp soxna si nee na mi ngi leen ciy soññ rawatina nag section yi nee na mboolem 21 section yëpp soxna saa ngi leen di soññ ci liggéey bi ci bisub mawlidu nabi sallallahu alayhi wa soññee bi nag nee na li ci jiitu mooy teewaay bi ci nekk nga ci ab section buñ ca eggee ci bisub gàmm gi nga ñëw defe si ko taayif ni ko sëriñ bi diglee waaye nee na buñ ñëwee ba teew itam nee nañu teewlu te ànd ak ak sell ci jàng alxuraanul karim ak jàng xasida ak salaatu ala nabi ak askaar lu ci waaye man nee na itam mi ngi sant mbooloo mi bu ñu ñëwee na ñëpp maase nekk ci tànt bi bañ a nekk ci dëkk bi di wëndeelu te xam ne bis bi kat bisub jaamu yàlla la bisub tudd yàlla la bisub sikar la bu ñëwee temps bépp nañ ko def ci baas bi ci jàng ak euh, sikar nee na ñu bañ a nekk ci biir dëkk bi di wëndeelu bu ñu yeggee ci war a xewlu itam ñu delluwaat ci dal yi te xewlu nee na itam bëgg nañu fonk bu baax a baax bernde yi ndax nee na képp ku ne gàmmu ne bernde kon bis bi loolu la laaj nee na bernde yi itam nee na nañ ko fonk lu ci waay man rek na ko ci def na ci waay nañ ci ñëpp def liñ man ba def ci luñ mënut ndax bis bi loolu la laaj soxna si nee na mi ngi ciy soññu ñëpp di ñaanal ñëpp nag suñu borom indi ñu ci jàmm ñu gàmm ko ci jàmm ak salaam delluwaat ci jàmm jàmm rek xew fi nee na mi ngi ñaanal bu baax sunu sëriñ bi Cheikh Moustapha sunu borom yàggal ko fi yàggalub taxawaayam bis bi mu yàgg ko taxawee nee na mi ngi ciy woo ñëpp daal góor ak jigéen bàyyiwul kenn na ñëpp maase ñëw ci bis bi màggal ko ni nga xam ne noonu lañu ko Cheikh Moustapha sante yéen doo ko fanaane ko asamaan seet ñu delluwaat ci yitte ya wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. noo ngi yëkkati kàddu ci bis bu màgg bi nu dëgmal. di bisub ngeen ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati kàddu ci turu sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo mi président section Ahibaahil Khadim bu Taïf muy wax ne mi ngi woo ñëpp mi ngi woo fépp mi ngi woo képp koo xam ne mbégum sëriñ bi sa mbég la kàddu googu mu di ko yëkkati di ko teg ci kaw kàddu yi kilifa yi di sëriñ Mouhamadou Lamine mii toog ak sëriñ Fadilou ak soxna Mame Bousso Mbacké di wax itam waa section bu Taïf di leen xamal ne bis bi xaas la ci noonu sëriñ bi di ko defee fii ci Taïf kon loolu mi ngi sant ñëpp kenn ku nekk la ciy sa warugar xamoon nga ko démb ak bërki démb loolee mi ngi ciy soññi ñëpp kenn ku nekk lam ci daan def na ko yokk yàlla nañ ci dajeeg tawfiixi Cheikh Mouhamadoul Moustapha wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi woote baa ngi noonu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke moom Serigne Mbacke soxna Lo ak daaraam bi di Ahibaahil Xadim li nusrati diinil xawim ñoo woo jullit ñëpp fu ñu mën a ne ci réew mi ak bitim réew ñu wuy si ko fii ci taayif ngir dundal guddig rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam ni ñu ko waxee nag noo ngi soñ ñëpp waaye noo ngi soñ mbooleem kuy ahibal xadim li nusrati diil xawim wuy seen wi sëriñ Mouhamadou Lamine nee na nañ ko gën a fonk bu baax a baax ci melo yi sëriñ bi sant ci ni ñu war a mel te mooy tëri bi nga xam ni noo ngi koy sol képp koo xam ne yaa ngi ñëw bokk ci ahibaal xadim li nusrat diinil xawim bul fàtte ndigal loolu na ko fonk loolu te jëfe ko bu ñu ñëwee ñu maase kenn ku nekk ci ñun jublu ci njàngum xasida mi ak njàngum alxuraan ak durus lu ci waay man boole ko déglu xasida yi bëccëg yëpp bu ñu àggee ca guddi ga it incha allah bu ñu àggee ca barsan ba kenn ku nekk teewlu ko bu ñu àggee ci bëri yi nga xam ne it ki jàng barsan bi dañu koy baamuloo ñun ñëpp ñu téye kurus yi téye téere yi baamu salaatu ak ñaan yooyu ñuy baamuloo bu ñu noppee doog a àggawaat ci jukki yi ànd akub yar ànd akub teggin lépp koo xam ne ñëw nga ci dëkk bi boo yoree lu diis la mënut a ñëw ci baas bi na nga dem ci sabdal nga bàyyi ko fa waaye woote bi mooy baas bi fii ci sëriñ Mouhamed Mbacke sëriñ Mouhamed Lemane mi ngi koy fàttali ñëpp góor jigéen mag ak ndaw waaye mboolem ku di jullit bëgg lu baax it sëriñ baa ngi lay woo fii ci Taïf yàlla ci yàlla yóbbu jàmm Cheikh Mamadou Moussa Mbacke yàlla ko fi yàlla yàggal lool yàlla ko yàlla wéral lool yàlla ko yàlla may ak bëggam ci lislaam ci tolop Cheikhul Khadim te lépp ñu ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu